fii de pêche bu mbuur ñi nga xamante ne ñoom ñooy nappkat yi jamono jii ñuy dund ay jafe-jafe yu tar li ko waral du lenn lu dul bateau yi nga xamante ne dañuy bàyyi ko ca biti réew ñëw ci suñu géej di ko salfaañe loole tax ba ñii di nappkat yi nañu demee la ñuy dikkee bu ñu sukkandikoo nag ci seen kàddu nguurug Sénégal mu jël yooyu dogal ba tax na sax ñii di ndaw ñi jamono jii ñuy jël gaal yi di dem biti réew. géej gi ñàkk jën yi lu ñu ci teg lu ñu ko teg. mooy bato yi si géej gi moo ñu sonal parce que bato yi dañuy yàq géej bato yi dañuy mbaal te am na jën yoo xam ne ñoom soxla wuñ ko su ñuy mbaal jën yoo dañuy dee ay jëni ndaw la ñuy doon yaa ngi dégg ay bato yoo xam ne dañuy manqué jëni teg ci kon loolu ñoo ñu sonal loolu moo ñu sonal te ñoo bëgg bato yooyu génn si ñu géej gi ñun ñu fexee liggéey normal. waa soxna si phénomène bi sonal nañu trop sonal nañu trop. parce que booy xool ñi ngi naan ay ndaw ñi dem nii yaa ngi dégg dañoo am xaalis bu ñu invest bu ñu kii yàq dem si géej gi mais xaalis boo xamante ne yow mi dem géej bu fekkoon sa xaalis ak sa xaalis doo dem xaalis sa yaay mooy jaay ay takkaayam wala mu teg ay natam wala mu koloo koloo xool noo def ba dem yaa ngi dégg xam nañ doon wax ay corona corona mais corona ay mag lay rey n'est-ce pas loolu la ñu waxoon lii fi jaar di rey jeunes yi dégguñu suñu gouvernement yi seen poos seen i compte seen i njaboot ñun ñi nga xamante ni kon ñun ñoo war di am ay quatre cent mille ay cent mille ba xëy dee du ñu am compte loolu mënut a nekk dañuy yegg si gaal dem ñun ñii ngay introsé nii ñàkk quatre cent mille moo tax nga fekk ñu fi ba ñuy introsé su ñu amoon quatre cent mille tey tey tey dañuy yegg si gaal yi. mais tamit wax dëgg fa yàlla ñuy wax dëgg la quoi géej gi maam dara nekkut fi maam géej dara nekk senegal dara nekkut fi barke maam Cheikh Ibrahima Fall mool dem napp ba ñëw boo ñëwee doo naro de am na moo yoo xam bu ñëwee du naro xam nga ne ñoo ngi ko teg suñu njiitu jaay na ko instant liggéey barke maam Cheikh Ibrahima maam boo dem nii di mbëkki wax dëgg Fall du ki soone ku sañoon avion ngay jaar mais boo gisee ñu li yëpp situation gàlle la quoi situation gàlle moo demee nii da imagine nekk si kër baay mooy ah? nekk si kër baay war a mën a faj dara mais du mooy loolu ko amoon kii abi val ngay val jël. waaw moom boo gisee li ko waral rek maanaam bote yi ni ñu sonalee géej gi ak mbaali caas yi loolu moo waral xale yi bari di jaay seen bakkan di dem si mbëkk bi mais buñ sañoon géej gi day naat kenn ku nekk toog fii liggéey am fi sa teraanga daal mais li gën a waral loolu yëpp mbaali caas yi la waaw ak ba tey loolu mooy suñu problème. leneen loo xamante ne daal dinañ ci àddu mu nekk ay kàddu yoo xamante ne dañ ko daal di foore muy nag doomu Sénégal yi nga xamante ne jëloon nañu gaal gi dem fële ci réewum Espagne am chance daldi di ca moomee réew jamono ji nag ay waxtaan am ci état bu Sénégal ak réewum Espagne ngir yooye ndaw nag ñu daal di leen a àndiwaat fii ci réew mi. Macky Sall ñu koy ñaan da leen rek lañ koy ñaan Sénégal jeunes yi dañoo sonn xale yi sonn nañ lool moo yi sonn nañ moo tax gars yi jógee fii dem di mbëkki ñee dem nag na leen bàyyi foofu ngir yàlla war a na leen bàyyi foofu rek te yàlla tax bu leen indi waate leen indi waatee fii Sénégal dina tas parce que dina muy tase mooy lan mooy li li mu jëlee gars yi fii leen fii ak ñi jël seen matériel jaay dem ngir daani seen doole xaruwuñ de ki fa dee xaruwul daal daani doole yaa ngi dégg waaye nag ñun ñi fi des ñi nañ gëm lenn muy lan mu ñu toog jàpp suñu dëkk liggéey ñee dem fee nag nañ jàpp seen bopp gëm na ñoom xam ne dañoo génn pour liggéey ak. Macky Sall moom bu indee xale yi moom xam ne nii mësu koo gis na ñu liggéey liggéey. fii amul dara fii amul dara géej amul dara na bàyyi xale yi ñu liggéey Thiès baañ woo na yàlla bu fexee ba xale yi ñëw ne fi gis ay agresseur ak ak ay xale dañoo sonn da dañoo sonn amuñu dara dañuy fanaan ci géej gi duñu am dara mooy si boppam ñoo sonn te mool ñoo jàmbar dañuy laaw suba laaw ngoon mool ñoo sonn na Macky Sall dimbali mool yi na dimbali mool yi mool sonn nañ mool sonn nañ dañ yërëm mool yi mool sonn nañ xamal naa ñaabaan bu fexee ba indi fi xale yi ay agresseur la ñuy doon ay agresseur la ñuy doon moo dañoo sonn waaw waaw déedéet waaw d'accord daal xale dañoo sonn da ngay dem ci géej gi dem du ngeen naru dara dañuy fanaan ci géej gi du am dara kon boog il faut xale yi mbëgg xale dañoo sonn na Macky Sall bàyyi xale yi ñu liggéey. mbëgg ba dee